noo ngi leen di baal xaq tey balu xaq ñëpp yal na nu yàlla boole jéggal dellu di ndokkeel jullit yëpp ci weer wu tedd bii nga xam ne ci lañu nekk yal na nu yàlla may wér ak tal ba man koo àggale te luñ ca def mu nangu ko daanaka nag bu ñu ko seetee li tee weer wi xaaj bariwut koo xam ne nag gan goo doon séentu la mu agsi fan yim fi waroon a def bu dee ñetti fan la benn bis ba ak genn wàll di bëgg a jàll taxawaat xool suñu diggante ak moom daf ciy baax ni mu ciy baaxe mooy ana luñ ko defalagun ana luñ defagun ci gan gi ak ana lu muy dem di ñu ko yóbbaaleel di ñu ko xoole ba ba muy dellusiwaat ak bu demee ana lu muy nettalil ñi ngi ci fukki fan yi ci digg bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon fukki fan yii nga xam ne ci lañu nekk yi ci digg weer wi fukki fan la yoo xam ne am ci njéggalu suñu boroom yomb na lool ab jullit yàlla nañu ko yàlla jàppandalal fukki fan yu yi ci digg bi it ci la xew-xew bu mag amee woon boo xam ne la doon dox jëm sow dafa wàññiku jëm penku loolu mooy lan mooy xew-xew am na ci boo xam ne ñu bari nee nañ fukki fan la ak juróom-ñaar kuréel bu tuuti bu néew ci ab limub nit ak néew lool ci limub ay jumtuwaay yuñ mën a jàmmarloo ak seen moroom waaye wéeru ci yàlla rek def ko wéttal wéeru ci yàlla def ko dendandoo ci waxin ba soppi doxinu jamono not ñoo xam ne kenn mësu leen a mën a not ndax bari woon nañ ci ab lim te saa bu ñuy dem ci bis bu ni mel dañ koy waaj waajtaay woo xam ne kuñ dajeel ku dul nañ dajeeloon rek mën ngaa yox yoxi walla nga deng-deng kon weer la woo xam ne yàlla geesu na ci jullit yi lu ëpp wenn yoon ndax fatxu makka it ci biir weeru koor la amee woon ci ñaar fukki fan ak benn ñii na ñaar fukki fan ak ñaar loolu nag liñ ci jànge mooy du weeru yàccaaral ne yàcc rek bañ a faste xànc ak moroom ma ci bëccëg bi su guddee nga def ko sa bëccëg loo waroon def ci bëccëg bi ci xeetu lekk ak naan ak waxtaan nga def ko ci guddi gi bu guddi gi jeexee nga neloo bëccëg bi loolu taxutoon a jóg weeru koor weeru koor wi yenent bi nga xam ne moom la yàlla wax ne ko toppatuma la dara doonte mus sa def lu ko yàlla di toppe waaye ñun lañ jubloo waxal te duutuma la topp dara taxutoon mu ne alhamdulillah taxutoon mu ne baasin yàlla li ma doon wut am naa ko déedéet bu bëccëgu koor masaan ñëw koor masaan jot ci lu matut fukki at ak ñaar ba ñett yim woor ci diggante boobu la nekk saa bu bëccëgu koor masaan ñëw da ngay xam ne tey bokkut ak démb day gën a tabe yitte ju ko waaye wax mu faj ko lu gone néew néew ay at mën nga koo yendal fi barab ndax day wàcc ba ci suuf te seydina muusa waxoon na ibrahima ak muusa ñoom ñëpp waxoon nañ seenu nit ne in nahnu illa basharun mislukum walakin allaha yamunnu ala man yashaau min ibadih ay nit lañ ni yéen waaye nag léeg-léeg dañuy wuute ak yéen diggante bu gàtt te diggante ba wuute ga du doon ci diggante boobu rek waaye yàlla lu mu waajaloon la bu yàgg a yàgg mooy wax yi leen di dikkal yàlla nee na mu bees peq waaye buñ ci jógee dañuy daal di nekk nit ni ñun lu ñuy santaane ñoo cay jiitu kon ku tabe woon la ci bëccëgu weeru koor kon bokk yi bëccëgu weeru koor du bëccëg boo xam ne dañ ko war a tëju rek ku ñëw ngir yaakaar bu ñëwee fekk ñu ne daa tëju seen yaakaar tas ñu delluwaat déedéet waaye weer la woo xam ne it ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawu ci noppalu ci buñ ne ko diw daa wéradi wala diw daa amu xew bëccëgu weeru koor daawu ko tee jóg di dem di seetu ku wéradi wala di jaale ji kon du weer woo xam ne dañ naan nañ bàyyi rek ba wor yi ndax bëccëg bi lii ak laa déedéet waaye weeru jàng alxuraan la ak jàngalante alxuraan am na ñoo xam ne dañuy yëkkati ay wax di ko teg ci ñi nga xam ne dañuy firi alxuraan ci koor gi waaye mbokk yi alxuraan suñ ko waxtaanewul ci koor gi waxtu ñu koy waxtaane ab laaj la waaye ku ci daa bari ay tudd yàlla la tudd yàlla nag bu dee ci réew mi mag ñi fi nekk yombal nañ ko lool am na ci ñoo xam ne seeni téere ku ci mel ne Cheikhul Xadim salawaatu ala nabi ak i adkaar ak i istigfaar mi ngi ne gàññi ci mbindam mi ku nopp ci alxuraan ji rek mën na caa dallu ji yàlla na yàlla nangu lépp gannaaw weeru njàmbaar la nag ba yonent bi daana ci def ci ay jaamu yàlla yoo xam ne daawu ko def ci weeru baraxlu te nit ñi di ci teg seen bët wala du ko def ci weeru koor yi te nit ñi di ci seen bët kon weeru koor am na jagleeg boppam goo xam ne moom rek moo ko am yàlla nañu ko yàlla déggloo la ca xas ba jàll nag jàll na te du ñëwaat lu dul déwén yàlla nañ bokk ci ña koy fekk ñu fexe ba li ci jàllagun ku nekk mën naa xam boppam nu mu ko jàllalee ba xam da ko doon nelaw mu xam ne weer wi du weeru nelaw daf ko daan tëju rek mu xam ne weer wi du weeru tëju kese kese waaye weeru faj ay soxla la ak doxi ay soxla yi sariya jàppe ay soxla yi gën a ñor rawatina seeti ku wéradi jaale ji dem ca armeel ya ak fekk ji jataay yi nga xam ne dañu koy woote te yàlla rek tax waaye bokk yi weer wi it ci fan yi dafa daje ak ñaari xew-xew yu am solo yoo xam ne jullit yi war nañ cee xam fu ñu teg seen tànk démb rek waxukaay yépp ñu ngi yandu ci di waxtaan ci ñeent fukki at yu jàll ci ginnaaw yoo xam ne dañu caa rayoon ay gone tuddee ko bis biñ jagleel gone yi Afrique bi bokk yi gone yooyee waris naa laaj ña ca faccoon ana fuñ mujj ak it ña leen rayoon ana nu ñu leen mujj def mbaadu ña leen rayoon tubaab yañ doon rek moo tax looy lépp doxe fa tàbbi géej mbaadu ñañ rayoon dañuy ay nit ñuul kese kese bokk yi fàttaliku bi naqar wi ci gën a am mooy dañuy wan nit xale bu Afrique bi ne ko saa su nekk tubaab bi moo la féete kaw lañ defoon ba tax tubaab ba def nam defoon it ku ko fi jéem a defaat tubaab bi mën na ko nam ko mën a tey tey la wàllu gën a aay waaye bokk yi am na geneen gone goo xam ne moom itam ci fan yii la rajo yi it waroon nañ cee def waxtaan yu xumb ak yu yaatu yi ñu def ci gone yooyu ñu rayoon ëpp na ñeent fukki at boobaak lay mën na ko 1976 ci Afrique du Sud gone googu aw turam rek am na lu mu jaxaloo xam ne jar na jullit yi seen xol sedd Omar Siddiq Matin la tudd gone googu ci ayu bis bi rek moo dugg ci foo xam ne ay góor jigéen dafa nag faat ca ñoom lu jege juróom fukki nit ñu reyaale ko ñu reyaale ko moom itam waaye jar na ko nag ndax bokk yi gudd fan amul njariñ maanaam at yu bari rek at yu bari li ko nit waroon a doyee mooy def rek def fi rek la mu fa war a def adduna bépp rawatina Sénégal bi ñu nekk bi ñu fi yëkkati mbirum góor jigéen ñëpp la naqari woon dënn yëpp jógoon na waaye ndekete yoo lu la të rek bàyyeel ak yàlla am na ndaw loo xam ne yàlla boole na ko ci ashaabul kahf yàlla mi ngi ñuy wax ci alquran tudde ko aw saar ñu tudde ko aw saar ashaabu alkahf mi ngi tàmbale alhamdulilah alladi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yajcal lahu iwaja iwaj mooy loo xam ne amut lim la wax ne la mooy moo amoon démb ak lii am tey soo ko boolee benn lay doon du amuk wuute du amuk rawante te it la cay dëgg rek lay tànn di ko wax mooy alquran alquran moomu moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déglul ma wax la asxaabul kahfi yi ngay dégg mooy ñan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda dañu doon dund jamono ju mel ne suñ jamono kuy wax dëgg ñu ne day chantage wala day jaay fit wu dëgër wala daa bëgg a siiw rek tur wu nekk danañ ko ko wutal ba loola tasaarooyee ba nga xam ne kuy wax ay caaxaan moom dañ koy jox temps d'antenne bu yaatu mu wax lu mu bëgg a wax ñu di ko baatareel xaalis waaye su dee tàmbalee wax wax ji xaw a metti tuuti yàlla nee na yàlla nee na ñu dak dar seeni nopp wala ñu toxal fañ koy wax ñooñu nag ba ñuy dund ci dëkk bu mel noonu ba mu yàgg dañ ne fii mënatuñu fee nekk nañ tuxu daal di génn dëkk ba dem seen yoon lu gudd la am na ñaar fukki aaya ak juróom ci saar woowu yoo xam ne ci mel noonu lay wax waaye daal pas-pas boobee ñoo ñu amoon ba ne lii naqari na ma mënuma ko fay jële naa tox feneen loolu tànn bu am solo la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ku gis loo xam ne noona soo ko mën a dégg sa loxo na nga ko dindi kooku mënu fee faagaa mënut a faagaagal góor jigéen ñëpp ñun ñi it mënuñu ko ndax am na dox suñu diggante ak moom agun am na dox suñu digganteeg moom a gun waaye loolu jullit yépp la ko defal ndax ñooñu yàlla àtte woon leen ba noppi ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallama faqtulul faaila wal mafuula te it bokk yi ku lislaam rey ba noppi ñu bàyyi ko fi muy dund day mel ni ab néew bu ne ci kër ab néew su xëyee faatu balaa ñu bàyyi ko ci kër ga ba jant bi so bu ñu wëttuwut mu wàll leen mu reyaa la ñu bari su fekkee dafa faatu ci guddi gi ñoo nañ ko fi bàyyi ba suba ba ca ngoon barkeeloo di ko barkeeloo mën naa yóbbaale ñu bari am na nu ñuy def mooy dañ koy daal di génn kër ga yóbbu ko feneen foo xam ne ña faatu ne moom a fa nekk waaw lu tax ñi lislaam ne nañ leen rey ba noppi ñu bàyyi leen ñuy dox yàlla na yàlla fay nguur soosu te fay ay kemam li tax ma ne dund amul njariñ def fi li nga fi war def moo am solo suñ demee ci alquran danañ ci fekk benn bi ngi ci suratul xadiid mal xayaatu dunya illa mataaul xurur aaya bi ñu ngi tàmbalee i'lamu annama alxayaatu dunya laacibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fi l amwaali wal awlaad yàlla moo xam jaamam ne adduna ji ngeen gis lu ci mbir xoy xoy xoy xoy lu fi waay yàgg-yàgg day mujj rek ngeen a démb la woon wala ci suba la rek te fama mataacu alxayaati dunya fi l axirati illa qalil loolu mi ngi ci suratu tawba daal la cay teg ne illa tanfiru yuadibkum adaban aliman wa yastabdil qawman gayrakum wala tadruhu shay'a su fekkee lii xew mi ngi xew te du leen naqari lu ngeen si jëm dara yàlla dana leen yónnee mbugal mu metti moo xam ne da leen fiy jële mën na leen fay jële yéen ñépp benn mu doon jàngoro yoo xam ne kenn du xam nu mu tudd wala jàngoro joo xam ne dañ naan kenn mënu koo faj muy jël nit ñi par benn bañ jeex takk mu indi fi ñeneen ñoo xam ne ñoom li taxoon yàlla indi ñu fi danañ ko fi def te nee na su boobaa it loolu di wàññi yàlla dara ku ca mën a bokk bu fi jógee tam wàññiwul yàlla dara ndax yàlla yàgg na fi te kooku ñëwagutoon kooku dana dem lu yàgg yàlla nekk am na bëy duñ mokkaloon bu yàgg xaw ma ku ko way nag kooka dafa tënk adduna sëpp ak dundu mag ak ndaw ci yetti bayit dafa wax ne nasiru ila al ajali fi kulli saatin wa ayaamuna tutwa wa hunna maraxilu bis bu sëpp ñuy dox gën a jëm ci suñu dig suñu limi bis di wàññiku bis bu romb taxañ nañ ko te duñ ko tàqat ci waat moo tax lu way war a def su su ko tegee ci alquran nee na yonent bi ne na gaaw def ko bu mu ci xalaat dara daal di ca teg ne wa ma aqbaxa tafrita fi zamani siba fa kayfa bihi wa shaybu fi rasi naazilu amut lu gën a bon nit doon gone suñ ko ne kaay wuy ji wooteeb suñu boroom mu ne damay xale saa su nekk nga dégg ñu ne ñun zone yi dem ba am fanweeri at ak juróom ñeent fukki at naan ñun zone yi kañ lay doon mag te li mag ñi xam lépp mu xam ko waaye day defe ne fi mu at yi mu toll du ati faatu te Serigne Souhaïbou bu naa ne ci téeréem bi mag day faatu gone di faatu ku dul mag di ndaw di faatu ku dul mag du ndaw mooy koo xam ne dañ koo jële ci biirum ndayam fekk mu faatu jot a gis jant bi yàlla ñu càll mu sol nee na gone buy sàggane lu mu war a def moo yées ci li yàlla bindaguñ ci kaw suuf si waaye naka mag moo xam ne moom nag tàmbali naa tóor tóor tàmbalee ba jaww mu defee ni faatoogut ñu saxal ci noppam yàlla na nga fi yàgg rek mu di ko gëm naan amiin te defagul dara mu teg ci ne taraxal an dunya bi zaadin min attuqa fa umruka ayaamun tuaddu qalailu gaawal wan gannaaw adduna bala laa addunaa wan gannaaw kii adduna wan gannaaw mooy koo xam ne dem na ba yaramam fépp di metti dara safatut ci aw làmmiñam mëntata mëntata dox lu sori balaa jóg sonn balaa toog sonn mëntata ay nalawam jeex spécialiste bu nekk ñu woo ko mu xool aw yaramam defal ko bilan dara bëgg a dund rek moo tax mooy da nga gaaw wan adduna gannaaw ni nga wane adduna gannaaw nag mooy xoy-xoy yim lay wan yépp nga xam ne ay nax la rek am na ñu ko jëkke woon te mujje wuñ ko moo tax yàlla waxoon ci alquran nu ab jullit di mel ci mbir yu ni mel yàlla dafa wax ci alquran ku dem ci suratul fatx dañ ko ci fekk muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum ab jullit daa war a doon koo xam ne yéefar bu taseeg moom ragal ko ci melokaanam ci jëmm ji ni muy mel ni mu koy defare te bu séqeeg moom xam ne kii jullit dëgg la am na ku doon wax ak ay nit ca réewi tubaab ya ne ko su ma xamutoon lislaam door a xam jullit yi dana doy waar lool waaye dama xam lislaam lépp door a xam jullit yi nag moo tax jaaxalul ma waaye su ma jëkkoon a xam jullit yi lislaam dana ma jaaxal loolu jullit bu nekk war naa moytu ñi koy tàmbalee ci moom di ko xoolee ci moom moo tax mbir yu ne mel dañ ko war a siiwal kañ ko waaye du neex deret nag ndax ki nga xam ne moom la waa adduna sépp yaakaar ku jaaxle ci wàllu ku la sonal nar laa xiixan moom ngay wooy ca biir këram la sikkiñ a lakkandooye ñu am ca kersa lool moo tax ñi ànd ak ñoom ñépp dañoo rus si mu nekk te mbokk yi bu yëggul rek lañ fi wax ne Sénégal gi wóoratul ndax mënuñu yor seen kaaraange ndekete yoo booba yàlla moom noppi na nar na leen rusloo nar na leen toroxal digg bëccëgum dara kam ñëpp yëg ko moo tax dañ caa teg tànk ne xiim te doon nañ ko fi waxtaane saa su nekk suñ tuddee baat bi nga bëgg a tudd léegi ku ko tudd ñu woola muy jihaad tàppet yëpp naan jihaad jeex na ndax sëriñ bi moom jëlee na ko fi laa xawla wala inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax lan bëgg jàmm rek bëgg jàmm dong bëgg jàmm nag bokk yi taxu ko taxu koo am alquran nee nañu nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suuratu tawba ak suuratu anfaal yi muy traité yu bare bare ci nuy jëflanteeg yéefar yi wa innaka dafa jëkk wax ne ab jullit mën naa dëkk ak kudul ab jullit ci kaw ay sart su fekkee kim dëkkal te du jullit doonte ci am réewam la nekk xëñu ko doxul digganteem ak diineem jéemu caa dox jéemu ko bundu xatal ci dara nee na su boobaa jullit bi am na lu ko war digganteem ak dëkkandam jooy waaye su fekkee daf ko nar a bundu xatal nag day gëm ne suuf sëpp yàllaa ko moom nit ñee ko wutal fi muy tàmbaleeg fi muy yem waaye suuf su nekk ma ne fi ngeen bi fenk ko sooy rek ma ne dafaa jaamoo yàlla laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilakum fi diini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innama yanhaakum allahu an alladina qaatalukum fi diini wa axrajukum min diyaarikum wa daaharu ala ixraajikum an tawallawhum am fa muy waxee ne wa in nakasuu aymanahum min baadi ahdihim wa taanuu fi diinikum fa qaatilu aimata alkufr aimata alkufr ni ko ñi ca alquran jublu woon juróom lañ te bokk yi nee nañ juróom yi ëpp doole ci kaw suuf réew yi ëpp sol doole ci kaw suuf lim nañ ca juróomi réew mbaaru ñoo ñoo ñëwaat tudd nañ ca abu jahlin tudd ca umayat bnu xalaf tudd ca utbat bnu rabia tudd ca abu sufyan ibn harb tudd ca suhayl ibn amr fa qaatilu aimat al kufr innahum la aymana lahum laallahum yantahu ñu bàyyi la ñuy def alaa tuqaatiluuna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ixraaji rasuli wa hum badaukum awwala marra ataxshawnahum fallahu axaqu an taxshawhu in kuntum muminin daal di joxe ndigal qaatiluuhum yuadibuhum allahu bi aydikum na ngeen jëflante ak ñoom bañ tàmbalee mos mbugal ma leen yàlla di teg ci seeni loxo yéen jullit wa yansurkum wa yuxzihim alayhim wa yashfi sudura qawmin muminina wa yudhib gayfa qulubihim kon nguur soosu def loolu jullit yépp la ko defal dundu gàtt nag la am ci ay at waaye aw turam duutu fi jóge ndax bokk yi junju naa ko léegi ku faatu wolof yi sax daawuñ ko jaarale ci buntu kër dañ koy bëttal ndax lan benn bañ waa kër gi gis ko ñaareel ba it nee nañ boo ko jaarale ci buntu kër bi day daal di day daal di taamala bu dee kër goo xam ne dañoo njig jigéen dolli sax dañuy fa jaarale ñu bari balaa yàgg moo tax dañuy bëtt perme ca gannaaw jël ko duñ ko jaarale ci bunt ñu jógee ci armeel ya bu ñu ñëwee dañ leen tegal ndox ci bunt ba ñu raxasu ndax bala ñoo bala ñoo wàll beegi kenn wala armeel la ci nga dégg ñu daan wax ne garab gu ñuy lekk sax bu saxee ci armeel bu bu ca genn gone dagg benn doom di ko ënd ci kër gi ndax garab guy law kenn du ko wàllaate bu dee sump fa lañ koy bàyyi su dee gang fa lañ koy bàyyi su dee dimb waxaale wuñ ko caxat moom mi nga xam day law moom nee nañ ku ko indi ci kër gi déegi day law di wàll nit te déedéet ku war a dem rek mooy dem ak na muy demee waaye buy ñëw yàlla nañu fekk ci lu neex yàlla ak loo xam ne bu ñu ko nettalee suñuy bokk duñ ca am kersa bari na kuy dund ba faatu kenn du bëgg ñu ne mbokkam la woon kenn du bëgg ñu ne ab xaritam la woon ndax nam fi nekkee woon moo tax bañ nañ ko ba bu ñuy seere sax kuñ ne sànnil ay kàddu mu ne déedéet xanaa diw mee kay ndax bëggut a wax nam deme te jàpp na ne armeel yi moom lañ fa war a wax rek lañ fay wax soo demee ci réewu Afrique yi am na si yoo xam ne doonuñu sax ñu am diine waaye la ñuy def mën naa jàjj ab jullit ndax am na ci seen dëkk ñoo xam ne bu nit faatoo ba ñu yóbbu ko ci armeel ya ba di ko ba di ko suul dañuy def ab liste lu waaye xam ci moom ci lu baax ñëw wax ko waaye lu waay xam ci moom ci lu bon ñu wax buñ noppee nag kay jéggal a jéggal ko nee na ñeey mu jeex loolu nag jullit yi war nañu ko xewal dana jàjj ñu bari ba yu baax yi ñuy waxal nit bu fi bàyyi ko rek benn muy boroomu juddu wala bu doon boroom ak ndomb tànk di daal di nekk wàll yi déedéet bokk yi yàlla naa ne ku faatu kumpaam dañ ñun ñoo ci xamul dara waaye am nañu ña nga leen taxaw di leen seereel te fekk ñu ngi jéppi lool man xaw ma ne diw nii damay taxaw su ko defee ñëpp daal di bëgg seere yu baax te mën naa ba ñu doon dëgg bokk yi ñoo ñu waaj rey am na ci réew mi ñoo xam ne seen bokk bokk na ci bokk doon na ko waaye dañ koy suturaal duñ ca jéem leen waaye su mbir mi amoon Sénégal tey kenn du ko fi dégg nga dégg ñuy wax droit de l'homme waaw droit de l'homme yi gone yooyu ma jëkkoon a tudd dañu dëkk Afrique du ñu wax ci ñoom xanaa tubaab ba leen rey rek moo tax waxuñ ci dara waaye bu leen nit ñu reyoon coow laa ngi bëgg a rey nit waaye droit de l'homme yooyu itam dafa am lu ci lu ci mat a leeral mbaa du ñoom droit ñi ñuy xeexal mooy képp ku dox jëm ci lu baax rek ñu dox sa diggante ak moom su dee ku nekk ci ci caaxaan ñu fexe nu mu ca tooge droit de l'homme ab àttekat ak boroom ndomb ak ñëpp nañ xam ne bis ngi ñëw boo xam ne kuñ reyut tit day dee man lam yamut bi sayfi maata bi xayrihi ni ñuy faatoo moo wuta rek waaye dee dee la rek waaye bokk yi nañ bàyyi xel tër boobu nga xam ne danañ ko tëral ñëpp ñii ñu teg leen ci aw dénk ñu ne ñaw tàlli ñareet weñ ñi dal ci seen bët yi duñ ko mën a dàq muy dañ ci seeni tuñ duñ ko mën a làq dàq buñ leen gëmmalut dañ naan xaj di xoole rek te duñ gis dara ku bàyyi xel na bis bis danañu ñu takk la teg foofu looy dugg danga ko xam looy wax danga ko xam moo tax que waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay wax ba yonent bi àtte ne ku ko gis nanga ko defal xéewal ba muy tagg ba agsi ci ay bayit daf caa wax tawxid ju wér fa qultu xallu sabili la aban lakum fa kullu ma qadar rahmanu mafaulu daal di wax ba ne kullu bni untha kullu bni untha wa in taalat salaamatuhu yowman ala alatin xadabaau mahmul am kuy kañ di di kañ saaba yi yi àndal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ne ñi ci faatu ci ay xare ñépp soo demoon di seet fu ñu leen jam duñ leen jam ci ginnaaw fekk dañ doon daw déedéet waaye ñii ci ay dënn lañ leen jam ñii jam leen ci biir te fekk ñi ngi jàkkaarloo ak noonu yàlla laa yaqaru taanu illa fi nuxurihim wa ma lahum an xiyaadi lmawti tahlilu kon bokk yi xew-xew yu ne mel jullit yi war nañ caa def ay feet def ca ay cant ndax atte su dee fardu kifaaya yépp fardu kifaaya moo gën a garaw fuuf fardu ayn fardu ayn niñ koy jàngale mooy par kenn lañuy atte ku ko defut lu tax daawut julli lu tax daawut woote amul ngànt lu tax nangam lu tax nangam waaye nag bu dee fardu kifaaya la ñu ne ñii dañ koy def mu wàcc ñi ci des su ko ñëpp deful mu teg leen bàkkaar misaal nañ ko ay yoon mooy tey ñun ñëpp suñ kër yi ci Sénégal kër gu nekk dana am ku xëy ñu jox ko tuuti as ci as xaalis mi ngi aju kanam ko ma ne mu dem wuti lu mu togg loolu mooy fardu kifaaya ñëpp la demal mu ñëw defar ko ba nit mën caa dugal loxoom def ci gémmiñam waaye bokk yi su boobaa bu ñuy di def ci gémmiñ yi kenn ku ne ku mu fay nekkal boppam loolu mooy fardu ayn mënees naa tibb sexal la nag waaye sax xamee ko wan na ko kenn mën a ko kenn donte mënees naa sax xamee gone gu am guti gëj waaye ginnaaw acte fardu kifaaya la ñim tegu ci seeni loxo nañ ragal yàlla te xam ne alaysa alaysa allahu bi ahkamil haakimiina aha kañ lu way acte fii di daganal ak araamal te du suñu boroom yàlla dana ko teg foo xam ne ñépp dañ koy séen yàlla di ko laaj muy wax ca kaw te alquran nee na su boobaa yàlla du laaj làmmiñ di wax déedéet al yawma bis dina ñëw naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaamaluun aw bima kanu yaksibuun dañuy taf gémmiñ cër yi la yàlla di laaj ñuy wax kenn ku ci nekk wax lam defoon bu bëggee xuloo ak cëram naan leen waaw yéen a def yéen a may def ni tey wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shayin wa huwa xalaqakum awala maratin wa ilayhi turjaun wa ma kuntum tastatiruuna an yashhada alaykum samcukum wala absaarukum wala juluudukum walakin danantum أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين يرمي جل موسى kon xew-xew yu ne mel jàkk am na lu mu ci wax war a wax jullit yi mooy goneb jullit gu def njàmbaar guy toll war naa siiw ni xisas yooyu am ci Mouhamed Ali mi doon junj keroog amee bëgg ko tudde am mbedd mu ne leen du mu du mu duñ ma tudde mbedd moo xam ne yéefari dañ ciy dox te fekk Muhammad la mbedd mi tudd bëgg koo takkal dara mu ne déedéet lii li ci nekk Muhammad du ko takk loolu nag junjoon nañ ko keroog ñu ngi koy fàttali ci xew-xew bu ne mel saa su nekk jullit bu nekk daa war a xool boppam ci yu ne mel fi muy dugg ci mu xool tur yu mu tudd moom wala sant yu mu sant wala ñi muy tuddoo naan ca la bokk ba xam ñooñu war nañu dugg foofu wala waruñu fa dugg ak bu faj jotee ndax moom war naa faj wala warta faj yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te nangul nu suñu koor te musal ñu ci seytaane ki pakkam te yàlla may ñu ñu àggale koor ja jàmm ndax am nañu ko fekke woon daaw dugg nañ ci duñ ko àggale yàlla nañu ko yàlla may ñooñu du seenu yaafus du seenu yàkkamtee dem waaye ñun yàlla nañu yàlla may ñu àggale ko ci jàmm te suñu borom nangu dañ fekke ko ay ati at yaghfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin